kon ñu dugg ci teggeen yu feeñ yi nga xam ne moo war dox diggante nit ki ak yàlla te julli yi ak koor yi ak sikar yi yu baax yi lu mu bari bari bari li fekk melokaan yi ñëwagul rek résultat bi ñu soxla amagu ko melokaan yooyu muy doxal ay teggin si diggante si borom doxal ay teggin si diggante ak seen borom te sëriñ bi njëlbeen bi mu wax ni la ci jëkk mu mu tënk ñetti baat ni tariixatul adabi رحمة الصغير كالأب والأم وتوقير الكبير وجعل مثلك كنفسك سواء يرمي قناه بمني ويجر ميكجر مك مني نغوكو بجابتكو نيسا باي بوك سمرو مني بجابتكو نيسا جمي بوك لول دفكو أخبنا فنك ليرا نان لنفيدة تي بير ba muy leeral noonu yarami gone dafa xam ne gone na nga ko yare bul ko dencal dara wépp yiw woo xam ne lii aw yiwam la mu yiwu adduna mu yiwu la bul ko ko dencal da am ci moom yërmaande ba di ko jox waaye yërmaande mooy lan lan la borom xam-xam yi tuddee yërmaande yërmaande yëg-yëg la buy nekk ci xolu nit ki mu yéenee njariñ yéenee jariñ nit ki ak yéenee mu mucc ci lor nga xam ne loo loo xam ci njariñ rek yéene nga lor it yéene woo ko ci dara la ngay bëgg mooy mucc ci lor yëpp yëg-yëg boobu nit ki yëg ci xolam loolu la ñuy tuddee arrahma moo tax nit ki mënta nekk raxiim mukk mukk tadu amee yëg-yëg boobu da lam koy def ginnaaw boo amee yëg-yëgu yéene nit ki njariñ yéene mucc ci lor la nga man ci lu ko may njariñ lépp da nga koy def la nga man ci lu ko muusal ci lor lépp da nga koy def lu ko mooy desutul yërmaan lu ko mooy yëg-yëgu kese bi du nekk yërmaane bokk na ci yërëm gone yi gone bi nga jëflanteeg moom def leen teen woo xam ne du la ragal waaye daf lay bëgg jëflanteeg moom jëflanteen woo xam ne du la ragal waaye daf lay bëgg dana la war maal bëgg la loolu bokk na ci rafet ci teg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan rob xale yi mu nuyu leen daf daan kaf ak ñoom di sëgg sax ñaari sëtam di war ci kaw di dàq mel ni ku war seen gileem mu naan leen neexmal jamalu jamalu kuma am ngeen gileem bu baax seen gileem bi amul morom dañuy war ci kaw di dàq mel ni ku war ci seen kaw fas waaye loolu lépp nag dañuy bëgg ci nit ki mu koy jëfleen digganteem ak gone yi weg mag sëriñ bi détaillé ko mag nag day ñetti mag faam koo xam dafa mag ci ay at am ku la mag ci xam am ku la mag ci dara ñu ko yàlla jox dara ñu ko yàlla jox ñett ñëpp nag diine dafa bëgg nga war maa ku la mag ci ay at kii dafa mag ci xam-xam kii daf laa mat ci daraja du ko yàlla jox ak ndénkaan yi bu ko defee njàngale mi ci sëriñ bi jàngale ci nooy wormaale mag mi la mag bu la magee ci at képp bul toogandoog moom ci kawub lal bu lal bi dee benn bàyyee ko ko ci suuf naka noonu boo toogee moom nga bañ a toog sës rëkk ci moom looy dëddul ay teggin sës rëkk ci moom ba xaw koo xatal bay dëddul ay teggin boo boo toogee ak ku mag nga bañ a toogee moom ci kaw lal bi ba nag a sës rëkk ci moom waaye nga ko distance loolu ba tey muy wax yëpp ni boo toogee nekkee ak ku mag ba aw ñam ñëw aw ñam fexeel ba bul jëkk a bu dee ak naan bu ko jëkk soññe na ko bàyyi ci loxoom ba mu joxe ndigal moom waaye mu ni it lëggën ca ñam wa it dee ko ku bàyyi lëggën ca ñam wa dee ko bàyyi waaye nag mu wala fi nag ci sunu mbaax dañuy àgg ci isaar googu dañuy àgg ci buñ buñ bokkee kilifa nag bu ko dagg lépp dee ko ko teg te dagg boobu it maanaam dana am ñum gënal waaye gënalu ñëpp moo tax day mel ni bi la sëñ bi ne na ko na ko li gën ci ñam wi na ko ko ko dagg tegal ko bu fekkee ni mag la moo xam ne dagg gi jafe na ci moom nga dagg ko tegal ko loolu nag am na nu muy demee nga ñàkk koo dagg moo koy gënal ndax mën naa am loolu dana ko xatal te du la a wax loolu am lu mat bàyyiwaale xel la ci biir njàng njàng bu ne na ko li gën ci ñam yi na ko ko tànnal nga jàpp na kon da ngaa war da nga koy war a dagg di ko tegal di ko dagg di ko tegal mën naa am doon lu gën a ñëpp loolu it daa bàyyi xel bu dee mag moo xam nag dagg jafe na ko nga dagg ko tegal moom baax waaye am na ko lay teraanga si moom mooy nga ëffal ko rek te bañ koo dagg di ko ne du ay teggin it si diggante rek ku la mag nga toog tàllal say tànk mu jëm ci moom loolu moom suñu borom defal na lu mu murit yi day mel ni dañ koo yaruwaale di ko doxe tàllal say tànk mu jëm ci moom waaye bu ko ni jàkk yëpp di ko jàkk di ko xool loolu yaroon na ci mag ñi ba àgg ci eh, dañu daan bëgg sax nit koo xamante ne kooku daanaka xamul ci li li muy def dara moom ñëw ñu jàkk sëñ di ko xool ba bu ñu génnee mën leen ko leer waaye lu ci ëpp bu ñu mësan ak moom ñu ci bari ci mag ñi mënuñu laa wax dëgg dëgg nu mel ngir teggin yii lañuy ñuy jëfandikoo lii mu jàngale rek ne bul ko ni jàkk rek teggin yi dañ koy jëfandikoo loo am solo it ñu bàyyi ko xel muy lii doon ay teggin ci noonu tubaab ba ak manqué si la ko jàpp yéefar bëgg boo boo yoo xam ngeen ko jàkk di wax boo sëggee dinaan kii dafa am lu lum nëbb moo ko tax mel ni waaye dafa am lu mu denc ci biir loolu daa ma tax daa ma tax xam ne teggin yi bokkuñ teggin yii munuy jàngal sa digganteeg ku la mag ab jullit waaye boo dee ba jàkkaarloo yéefar ba nga xam ne boo sëggee day jàpp ne dafa am tricas yooyu làq jër sa sëgg boo sëggee da ngay manqué sa bopp loolu ak manqué li teg foofu mu wax ne kere mag ba tey bokk na ci ay teg seen moom lépp lu mu soxla nga liggéeyal ko lépp lu mu aajowoo rek deg ko defal bu bëggee ko mu yónni jógal dem boo gisee mu koy gaaral képp jëkk mu di la ko wax waxuma la nag mu di la yónni ngay gàntal waaye boo gisee muy gaaral bëgg ko mu yónni képp day bëgg nga jóg dem doxale ko yonente ba ngir jëm yàlla loolu lépp sa diggante ku la mag ci ay at sax ci lu dul muy dugagun ci ki la mag ci xam-xam ki la mag ci xam-xam kilifa gi nga xamante ne dafa doon kilifa ci wàllu gu mën ci wàllu diine la wala ci wàllu adduna la da caa dolli ci teggin yooyu mu mu mu njëkk ne boo toogee fi moom bul bari ab yëngutu akum pox na nga def na nga dal nga ànd ak dal boo jekkiwale ak moom te da ngay noppi bañ bari wax boo toogeeg moom bul ree ree ju bari boo demee ba mënu ñàkk ree na doon muuñ muuñ loolu mooy teggeen yi war dox si diggante ak magum xam-xam yi si diggante ak sëriñ bi nga xamante ni sëriñu tarbiya la kooku nga xam ne la mag li la sëñ bi digal mooy lu lu mu la mën a béccingal na nanga ko jéem muñ loo xam ci moom ci rëcc rëcc it na nga ko ko nëbbal bul ko it mere bul ko mere ndax lu ëpp ci mag mi xam li mu war a xam na muy doxale sa digg ak moom sa sa sa lu baax la la jublool waaye jubluwul lu bon ba tax nga war ko mere moo tax bu ko mere te loo man ci faj ay aajo bi na koy def bu dee boroom xam-xam yi mu digal la ci ni la lay teggin si diggante ñoom moom mooy dee leen siyaar bi dee leen siyaar bi siyaar bi digle nag bokkut ak siyaar bi ñu xewal fii ci tarixa bi léegi dañuy téléphone naan sëñ maa ngi siyaar waaye toujours damay wax ne siyaar du ay wax dañ koy def ziar mooy nga jóg ngir jëmmi nit seet ko dafa wax ne boroom xam-xam yi lay ay teggante diggante ñoom mooy nga jóg di leen ziyaar ji ngir jëm yàlla ndax man jataay ba nga fay am lu mu gàtt gàtt mën nga faa déggee xikma boo xam ni mën naa defar sa àddina defar sa àllaxira moo tax jóg ziyaar ji leen te am yéene jooju naka noonu nit ku baax kuñ la ne baax na rek dee ko ziyaar sëriñ bi li gën a xar baax ci ay mbiram mooy li muy jàngale di ko wax noonu la loolu la daan jëf ku mas a dégg ni ku baax la yónnee na ko addiya wër na siyaare boolem ñi ñu daan tuddee ay awliya fii ak ci gànnaar ñi ñiy dund ak ñi faatu ba ci ba ci barab bi bàmmeel bi sax daan dem di mu def ko daf ko ko def dafa siyaare ji mbooleem nit yi mu daan dégg ñuy dund ak ñi nga xam ne dañoo faatu muy dem ca barab yi di leen siyaare loolu tax mu ni na ngay siyaare bi boroom xam-xam bi ak nitu yàlla bi tey sàkku seen ñaan naka noonu teggin diggante nit ki ak xam-xam ay teggin diggante nit ki ak jëmmi xam-xam xam-xam yan teggin nga war a si diggante moom mooy farlu ci di ko sàkk farlu ci jox ko ak farlu gu mat sëkk naka noonu sa waxtu wépp nga jox ko xam-xam nit ki toll ci sàkk xam-xam na fa loolu nee naa ay teggin ni diggante ma ci boppam ki ci sàkk xam-xam bokk na ci ay teggin diggante ma xam-xam mu néewal ay nelaw waaye bëgg di nelaw nu mu la neex ba noppi bëgg am xam-xam bari mënti nekk eh, fokk nga néewal say nelaw fokk nga sawar bañ a tayal loolu teggii ne diggante nit ki la ak xam-xam nga bañ a tayal amul cawarte lu ma waral am ñoo xam ne naan teg tarmus kafe saa bu ñu demee ba war a gëmmet naan ci sëñ moom da wax ne la saa bu nee ba ngëmmet dikkal la jógal nga jëlee ay rakk am ñoo xam ne naan boo demee bay gëmmet da nga jóg daw waaye di dàq nelaw yu bari ak dàq tayaay bu bari ngir jox xam-xam gëddaam bokk njay tege naka noonu wàññi say bëgg-bëgg waaw nit ki bu fekkee ne daa toll sax xam-xam bu fekkee bëgg-bëgg yi bari na joxul itam jëpp xam-xam bootul la mu bëgg ci xam-xam du ko am moo tax du ay teggin nga bëgg xam-xam ba noppi lu ne nga bëgg ko waat nga bëggaat ko ca tegal da ngay gàttal say mébét naka noonu bu ngay sàkku xam-xamit nga toroxlu nooy nooy sa diggante ki lay jàng nooy sa diggante xam-xam nooy sa diggante ak ñiy sàkku xam-xam woyefal sa bopp ba loo xamut laaj ko te ku ko xam ko ne bul ko ko réye laaj ak kum doon moo xam ne koo mag wala dañ ko ëppale nangam wala dañ ko rawee nangam lu ma doon rek ginnaaw moo ko xam te xamoo ko bul ko ko réye laaj loolu bokk na ci ay teggin diggante nit ki ak xam-xam ba ci sëriñ bi day wax ni la booy sàkk xam-xam bokk na ci say teggin diggante xam-xam nga toog ci suuf bañ a toog ci kaw ñu jàpp culture boobu ñu jàpp ko ni bokkut ak culture ñoom ca kaw lañu turbee waaye sëriñ bi li mu digle laay mooy bokk na ci teggin xam-xam booy sàkk nga toog ci suuf naka noonu sa itte jëpp nga jox ko xam lu nga bañ koo yeexe di ko xaaral benn heure jamono bu ne lu mën a nekk na nekk kon loolu mooy tegg ni aju ci jëmmi borom xam-xam yi ak nit ñu baax ñi ak jëmmi xam-xam ci boppam waaye noonu la amee ay teggin diggante nit ki ak way jur ñaari way jur dañ caa soxla ay teggin yépp nag buñ ko boolee teggin yii nag nit ki jëfe ko mooy li ko mën a yóbbu mu àgg ci yàlla waaye du julli yu bari du koor yu bari du sikar su bari ndax yooyu la la muy def ci yow mooy jikko yi mooy tax nit ki àgg ci ñaari waajur lam la ci jëkk digal mooy la ñu lay digal nga def ko la ñu lay tere nga bàyyi ko li ci suñu borom wax kenn mënu ci dal dara laa taqul lahumaa uffin wala tanharhumaa uffin dañuy wax kàddu gi gën a suufe ci luy nuru ak doye dal rek bu ko wax am na sax borom xam yu àgg ci ni waxuma la sax nga naan ko mu wax ak yow bu noppi nga nga ñëkkal sa xar kanam sax dëggalu si dégg tegu nga ñëkkal sa xar kanam sax wan ko ni ko lii nga wax neexu sax dëggalu si dégg tegu gëdd nag waxaale sax wala tanhahuma booy wax ak ñoom fokk nga wax wax ju dal te tey te nag mokk toroxlu te am ñoom yërmaande di leen ko ñaanal yët nag di ñaan yàlla mu yërëm leen ni ñu la daan yërëm ba ngay doon ko def waaye sëriñ bi noonu la indi daanaka jamono mu ne damay wax ni nax du mën naa yor alal société bu ne bu ñu ko fa yóbboon jàngal nañ ko ñu dox doxal ko mën naa defar yàqu-yàqu yëpp mu indi ay teggi diggante nit ki ak ay àndandoo lam ca jëkk a digle mooy booy tànn àndandoo na nga ko tànn booy wut àndandoo na nga tànn ñi ngay ànd bul seet ku la neex muy bul ànd ak ku dese bul ànd ak ku iñaan bul ànd ak ku bari ay xelanteef day bëgg nga ànd ak nit dëgg ni mun la bu booy ànd fexeel ba bul ànd ak ku dul koo xam ni da nga dolli koo ci moom am xel wala ngay dolli koo ci moom diine kon day mel ni ab junj la boo xam na nga na nga ànd ak boroom xam-xam bi la la jubloo foofu mbaa nga ànd ak nit ku baax koo xam jàmm ko moo tax mu ni la bu la ànd ak ku dul ku lay dolli am xel mbaa mu lay dolli diine àndandoo bokk na ci teggin nit ñi ngay àndal nga bañ leen nax bu leen wax lu dul dëgg bu leen dig dara ba noppi woor leen ci dige ba dige nag waxuma rek dige loo war a joxe waaye dige ni dinaa fa ñëw waxtu sàngam sax bul war dig boobu fexeel ba bala nga ne dinaa ñëw waxtu sàngam nanga nga xool ba man wax ko te bu boobaa bu jubee na nga def la nga man ngir teew naka noonu loo leen digit na nga fexe ba digg yooyu bu leen ci wax loolu bokk na ci lii rafet ab ànd bokk na ci teggin yi nga xam ne kooku séqal seen diggante jamono bu ne day na a ratax waaye luy nuru ab ñagas ñagas du fa dugg te mooy bul ko nax loo ko wax day dëgg ci yow bul ko dig dara yi dig ba di dañ moo xam diggu dikk la seetsi ko wane digub jox ko dara jamono bu ne it ngay fexe bay rafetal sa jikko sa diggante ak àndandoo yi leen yaatal loo man ci loo jàpp ni mën naa xëcc seenu cofeel nga def bu dee toog waxtaana leen bu seen xol seet baax bu dee am alal yoo leen mën a jox baax bu dee invité leen la defar aw ñam jox leen baax la nga xamante ni daal dana saral seen xol ci yow jamono bu ne ngay def sa kem kàttan ngir seen xol di sal ci yow mooy at tawaddut naka noonu bay wax ak ñoom it ngay nooyal say wax ndax bari na xuloo boo xam ni ci waxtaan la tàmbali waaye la tax mu weesu waxtaan dem ba ci xuloo mooy ñàkk jëfandikoo lii sëñ bi digle muy nooyal say wax ak tànn kàddu yi ngay wax ba ci kaf am na kàddu yi kaf yoo xam ne boo ko waxee mën naa jàqal bi xolub nit ki mu daal di indi ak xoloo si dégg-dégg nag sëriñ daf koy jàngale ñi mën a am bu teey fii ci àdduna am ko ëllëg naka noonu aaju lépp luy seen itte nga di ci taxaw di leen liggéey di leen jàppale loo man boo defee njuumte bañ la def nga naa nga leen maa ngi jëkk li ci ëpp ñaare boo ko xasee wax daal di mucc ci lu bare bare jéggalu maa ngi jéggalu boo juumee jéggalu leen waaye nit ki sàkku ci yow dara boo xoolee ba gis ni la muy sàkku yeyoo na bul ko ko xaj mooy bul doxee ak nay sa diggante ak ànd bi loolu bokk na ci lii rafetal ab ànd bokk na ci ay tëgg noonu la sëñ bi indee teggeen sa diggante ak gan àndandooy jàll na dooy jur jàll waaye gan bi nga xamante ni dafa ñëw war a dem dafa am ay teggin yu mu bëgg nga doxale ko ak ñun teggini gan la ca jëkk mooy nga yaatal ko dafa am bernde teraanga yoo xamante ne suñu borom moo ko waral ci nit yi moo war ko teral gan yi nga fonk ko la jos mooy nga ubbi sa kanam diirub li muy nekk yow yaatal ko ci sa kanam loolu ci li ci ëpp solo ci teggin ni ñoo war doxale ak gan ci la bokk